dialogue boobee. Euh, abord damay profito ci occasion bi euh, euh, journée mondiale de la liberté de presse may profito rek pour di leen wax massa vous les journalistes abord ci persécution bi nga xam ne tax na Sénégal reculer euh, ci classement yi. en matière de liberté de la presse di woo encore une fois le président Macky Sall à plus de sérénité, à plus de, de, de retenue par rapport aux journalistes pour tout ce qui est lié à l'exercice de leur fonction et de leur métier. En tout cas, euh, li nga xam ne moom nga ma laaj léegi euh, ci wàllu dialogue bi euh, man je suis catégorique duma dialoguer ak Macky Sall parce qu'il n'est pas sincère, il n'a jamais été sincère et ses appels au dialogue n'ont jamais été également sincères. Donc, nous, on a défendu cette position, fin qu'on va défendre, moi, au niveau du f Demb ci débat yi on a dit exactement ce qu'on pense mooy bokkuñu ci waxtaan ak Macky Sall parce que Macky Sall ku mu joteel moo la Sall ku seq ak moom moo et dégg ngeen léegi li Mimi Touré wax madame Aminata Touré ku ne xam na ne ku jege woon Macky Sall xam na nu muy def ci njuuj njaaj ak ñoomin seen waaye tey moom comprendre na ne il faut être du côté du peuple kon Macky Sall li mu nekk di ko tëgg ñëpp xam nañ ni fan la jëm mooy wut ay partenaires yu ko légitimel troisième mandat am et ñun gëm sa bopp dañu mus di xeex pour loolu kon du ñu ci ànd léegi yaa may wax ne wuy boo demul ci euh, dialogue bi problème mu parrainage gis nga il faut ngeen bàyyi xel ne man awma fixation pour nekk président de la république du fixation pour man képp ku ko mën a doon ku mën a lijjanti problème mu sénégalais yi alhamdulilah bu téye dinaa ko xeex bu ma bàyyee ma jàll dinaa ko gën a xeex donc man awma problème yooyu li ma intéressé mooy naka lañ mun a def ba sénégalais yi génn ci situation bi ñu nekk Macky Sall garabu njuuj njaaj gi mu saxal ci réew mi te xob yi doon wor xob yi doon wax waxeet xob yi mooy sàcc alalu réew mi ñuy sàkku ñëpp ñu jël semmiñ pour gor garab googu parce que Macky Sall wax nañu fu mu jëm wax nañu li mu nar a def ci biir interview bi mu def l'autre jour am na extrait bu ma ci dégg mu ne jàmm gën troisième mandat bëgguñu jàmm ñu ne ko lu tax mu ne parce que dañu ne président du bokk waay waay xaayaan ku dégg séeréer kon bu ñu waxoon ne troisième mandat moo gën jàmm donc d' accord naa ak ñoom mooy ne moom day dem taxaw na pare na léegi li am solo mooy unité bi am ci F24 F24 nekk benn say jàkkaarloo ak président Macky Sall ak képp koo xam ne natt na laa dugal ci diilam boobu muy def parce que man li ma jàpp mooy dialogue deal la dialogue dealer la dialogue na boo xam ne daf ci jublu daal di yoonal troisième mandat et nous on toujours été catégorique toujours été constant no au troisième mandat inter. waaw dialogue boobu mu woote mënul ànd maanaam divergence ci biir F24 ndaxte dégg nañ ni ñenn ñu bokk ci F24 nee nañ ñoom fas yéene na ñoo dem ci dialogue. ndax xam nga entité F24 kenn woowu ko ci dialogue donc entité F24 mënta wax jëmee ci dialogue mais ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ay acteurs ci lii nga xam ne. Euh, moom woote na ko te ñu xam ne wax ji ci ñun la ko jëmee mais ñu ñun ji nga xam ne gëm sa bopp ci la bopp ñun nanguwu ñu toog ak Macky parce que xam nañ ne il n'a jamais été sincère lépp loo xam ne def na ko am na lu nekk ci ginnaaw Euh, gone bu la woowee ci sànnanteem xeer te téye xeer ba noppi da ngay moytu parce que lii du benn yoon du ñaari yoon dites-moi ce que dialogue ici a à régler tous les dialogues ont abouti ci ay compromissions ay deal ci kanamu askan bi alors ñun lu jëm ci deal kenn duñu ci dégg lu jëm ci compromission ci doowu askan bi kenn duñu ci gis et incha allahu rabbi loolu moo tax ñu ne duñu bokk ci dialogue Macky Sall. léegi ñoom ñi nar a dem ci dialogue bi est-ce bu ñu demee dañ leen di mere wala duñ leen wax. mais non non non xam nga ku nekk fii ku nekk dafa libre et f loolu moom mooy dooleem moo tax ci biir plénière yi démb li ñu retenir ngeen dégg coordonnateur bi wax ko. mooy ne F24 jotul convocation kenn bëriyewu ko ci dialogue national waaw lu ñu la woowul nag booy wax jëmee ca loolu dafay mel ni euh, yegg ci ngénte gu ñu la yëgalut boo fa boo fa tojee kaas da ngay fay moo tax ñu ne comme yéen acteurs yi yéen la waxal xool leen ci seen taxawaay kenn ku nekk taxawaay wa nga am ku dem gëw ma ne dina la mere ku dem xëy na il faut comprendre xam nga dama wax ne tey ñu mel ni waa PASTEF nga xam ne dañu persécuter ay militants PASTEF persécuter top management bu PASTEF ñooñu tey bu ñu demoon waxtaan ak Macky Sall xam nga mënees na ko comprendre am na nit mënees na ko comprendre et pourtant ñoom dañ ne non am na ci ñoo xam ne dañu leen wax ne yéen bu ngeen ñëwul waxtaan ak ñun dañu leen téye ci justice bu ngeen waxtaanul ak ñun du ngeen nekk candidat dégg ngeen ci ñoo xam ne nee na ñoom nañu bokk rek lu xew baax na nañu bokk waaw ki la mën a tax nga bokk yow moom mu bëgg bokk est-ce que yow mën nga koo tere ne du bokk alors donc je dis il faut qu'on soit conséquent ñun mënuñu ànd ak waxtaan ci Macky sàll sachant que Macky Sall li ko intéressé mooy le troisième mandat e les Sénégalais sont catégoriques il y aura pas de troisième mandat dans ce pays wala bu ko defee danañu ko duma duma yu wóor yoo xam ne dootu ko gaaw a fàtte ni ñu ko defoon ci législative yi def ko ko ci local yi mu jàkkaarloog moom incha allahu rabbi ku gis la manière dont les gens se sont comportés pour la période de révision des listes électorales muy au Sénégal ou à l'étranger France bi nga xam ne man fa la nekkoon gis naa nit ñi pas-pas bi ñu ci àndal donc nit ñi taxaw nañu parce que Macky Sall nit ñi doyal nañu ci lenn donc la ñu mën a defal mooy fii ak fukki weer mu bàyyi réew mi génn ci ci yoon bi gën a gàtt li nga xam ne nag ñun moom lañ jàpp mooy dialogue boo xam ne da ciy dem te amuloo ay termes de référence toogoog moom mu ne la damay bokk troisième mandat kooku dafoo fa dara rawatina nag bi nga xamee ne wax na ko nee naa leen ci interview bi mu def ak Assane Gueye nee na jàmm gën troisième mandat ñooñu bëgguñu jàmm ñu ne ko lu tax mu ne parce que dañu ne président du bokk kon kay wax ji leer na mooy bu ñu ne woon président day bokk kon ñooñu bëgg nañu jàmm waaw moom na jàpp ne Macky Sall sénégalais yi bëgguñu jàmm ci kuy wuti troisième mandat et danañu jàkkaarloo ak moom danañu ko jëflante ak moom c'est pourquoi je vois le F24 en cas oui oui. mais peut-être euh, li mu def lu mu xam la parce que xam na ne jeunes yi nangu nañu dem bindu ji pour jëlee ko fi c'est pourquoi c'est de bonne guerre ci moom la mu def parce que noonu la ko gisee mais. su dee dana fi jóge incha allah euh, euh, ban euh, jàngat bi ñu mën a defaatee maanaam point de presse bi def rawatina njiitu réew mi nga xam ne woote na maanaam dialogue. waaw il faut déjà ñu saluer F24 li nga xam ne moom la def di fàttali suñu bopp di fàttali Sénégalais yi que force vive Sénégal 2024 bi F24. dafa doon loo xam ne ñun jàpp nañ dara mun ko dialogue bi nga xam ne moom la président Macky Sall woote di ci espérer na mën na dugg ci biir opposition bi tas leen ba ñu ñu xuloo seen biir bu soobee yàlla du ko am moo tax décision bi nga xam ne F24 jël na ko ñun dañ koy rafetlu maanaam F24 dafa am ay points yoo xam ne moom mooy ay revendication wam créé nañ ko avant le président Macky Sall di woote dialogue bu bëggee dialogue ak F24 ci point yooyu ne leen waxtaan ak ñoom ak waxtaan mais dialogue bi nga xam ne moom la président Macky Sall di woote daf ci am yu bëri yu ci lëndëm yoo xam ne moo tax ñu mënuñ ci dem bu njëkk bi mooy même boo nekkee président la république dëkk dafa am nu muy dox élection présidentielle tey bu ko Macky Sall di woote du ñëw def discours comme ni mu ko defee interview noonu ne vingt cinq février dafay am élection dafay bind lettre dafa am procédure dafa am fu muy jaar donc ay gor ñoo xam ne sa nawle lañ boo bëggee gi ak ñoom da nga leen di saisir officiellement bind leen ay lettre entité bu nekk nga invité ko ci jaloo ni ko dama bëgg boo ñëwee ci dialogue bi ñu waxtaan ci tel point tel point ak tel point mais nga ñëw toog ci benn émission wax noonu rek après nit ñi di jóg ak daanu ku nekk di wax ci dialogue je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de l'opposition donc bu dee dialogue bi daf ko ñor na bind lettre def ay termes de référence ñu wax ci deuxièmement ñun awale dañu jàpp ne am na yoo xam ne kenn mënu ko négocier affaire u mandat président de la république ci article vingt sept de la constitution la nekk loolu Macky moomu ko opposition moomu ko société civile moomu ko Sénégal yëpp ñoo ko moom même bu amoon kenn ci ñun ku bëgg bàyyi pour wut lu neex Macky Sall wala pour Macky Sall defal la lu la neex mënoo ko ko jox parce que article vingt sept de la constitution c' est dans le domaine public donc loolu kenn mënu ko dialoguer ku ci yaakaar bu yaakaaree bu woowee opposition bi waxtaan ak ñenn ñi defal leen ay privilège ñooñu mën nañ ko garantir ne dina am troisième candidature mu ngi nax boppam parce que bu woowoon quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l'opposition ñoo ñooñu dem ne ko d'accord nañ yow président Macky Sall nga nekk candidat président de la République Macky Sall mënatul nekk candidat une troisième fois donc loolu du dialogue moo koy réglé référendum moo ko doon réglé conseil euh, constitution moo ko doon réglé constitution boobu wax na ba pare amu ci lu leer lu ñuy interprété lu leer la donc ñu li nga xam ne mën nañ ko dialogué ak président Macky Sall tey mooy nan lañ koy gungee ci weer yu néew yi fi des pour mu def passation de service am passation de pouvoir le 3 avril 2024 comme ça ki fi ñëw day fekk dëkk boo xam ne nekk na ci jàmm nekk ci tey bu mënee ñëw doxal ay dëkkam donc dialogue boobu ñun mënuñ ci dem parce que dañ jàpp ne d' abord ni ñu ko pas sincère ensuite li mu ko lal ci troisième candidature ñun mënuñ ci négocier mënuñ ci dialogue. Ah, bu ñu xoole euh, waxoon ngeen ne article benn article 30 yi nga xam ne. day tax nit yi am jafe-jafe seen wàllu candidature. Mhm. tey ñu mën a wax ne ki nga xam ne mooy le leader du Pastef euh, bu xefulee mën na ci am ay jafe-jafe ndax ñaari procès yi koy xaar loolee aussi yéen it nan ngeen ci nar a taxawee. ñun li ñu wax xam nga point yi ngay wax mooy les différents articles du code électoral bu ma juumul. Mhm. yooyu dafa bokk ci plateforme F24 yi nga xam ne moom lay xeex moom laa wax sànq F24 juddu na avant président Macky Sall di woote dialogue am loolu ñu ngi ciy wax troisième candidature ñu ngi ciy wax candidat yi nga xam ne président Macky Sall daf leen bëgg a faagaagal pour du ñu bokk donc yooyu yëpp ay points la yoo xam ne dans une république normal ñun pare nañ pour waxtaan ci ak moom dans le cadre du F24 mais dialogue politique politicien bi muy ñun loolu intéressé wu loolu nag waxuma ko au nom du M24 M24 dégg nga leen ñu ne dem ñoom demuñ ci ñun aussi Awalé ak Abdourahmane demul ci dialogue boobu parce que ñun mënuñu engagé ci dialogue pour dugal ay nit ci gouvernement ça ne nous intéresse pas mënuñu engagé ci dialogue pour négocier la candidature bu président Macky Sall defee ne mën na woo une partie de l' opposition neexal leen saxal leen ay tàngal pour que derrière ñu jàppale ko pour mu am troisième candidat ñu ngi nax boppam te opposition boobu amul lu muy diggee parce que moomul la muy diggee Macky aussi amul dara loo xam ne mën na leen dig pour am ci troisième candidature donc ce dialogue politicien là ñun ça ne nous intéresse f dox na leen position woom am na ay quatre points yoo xam ne ñu ciy wax Macky Sall à condition maintenant que le président de la République Macky Sall def une déclaration officielle ne xam na ne moom mënul nekk candidat bu mënatul nekk candidat mu créer benn comité boo xam ne société civile mën na ko jiite wala une personnalité indépendante bu boobaa ñu xànd xool ñuy àndee ak moom pour def passation de service waaw par rapport ak seen position bi nga wax gàllankoor bi ngeen séddee gis nañu am na ñoo xam ne bokkoo leen gis-gis te biir opposition loolu sëñ bi moo tax F24 bi décision bi ñu jëlee dama ci. jox mu ci jublu woon mooy bu wootee dialogue ci biir F24 ñun bu ñu d' accord ku nekk dem sa yoon mais tey piège boobu teggi nañ parce que F24 nee na ko sa dialogue association boobu ngay woote du ma ci bokk opposition bi ñi si des que na la ñëw wax bi ñi mais li may wax sénégalais rek di ko fàttali opposition boobu di ko fàttali Macky Sall mooy amul benn opposant boo xam ne mën nga jox président Macky Sall garantie que ne day am troisième candidature parce que loolu Macky Sall moomu ko opposition moomu ko société civile moomu ko sénégalais yi ñoo ko moom donc yaakaar aussi ne mën nga ko wax loolu euh, mu jox la leneen aussi yaa ngi yaa ngi nax sa bopp donc ñun on respecte les gens nekk boo demee ci dialogue bi yaa xam loo fay am ñun dialogue boobu demuñ ci parce que dañ jàpp ne amul njeexite dialogue bi nga xam ne bëgg nañ ko def ak moom mooy bu déclaré ne nekkul candidat ñu xool nan la ñuy ànd ak moom pour gunge ko comme ça président bi nga xam ne moo ci topp ñëw di liggéey liggéeyam dina gaaw. par rapport ak déjà am